Là de Peace, l'a de Bégué, Galsen sur scène, Stand Up. Merci de votre fidélité sur scène TV, votre première chaîne de télé urbaine du Sénégal. Paco ñëwaat na ci beneen numéro Galsen sur scène mais nous rendre hommage suñu benn grand avant tout nous nga king hip hop Galsen le grand JJ, ma brother Souleymane c'est slash Jules Junior racing in peace brother. tey ñu Azur Thiaroye Azur templier la si hip hop Galsen Thiaré Azur su ma koy wax daf may fàttali waa gëpp la terrain basket bi ñu nekk mi ngi may rappeler jamonoy 2004 2005 2006 jamono ji nga xam ne waa gëb la ñu ngi nekk ci sommet wu hip hop Galsen ak seen collabo boobu ñu doon def ci Oslo Dakar l'album Rap New Generation seen petit frère laay dalal tey eight years eight bar le groupe

def ku nekk ci tànku xamadi ngeen su toogee topp ci mën bi daal lu xew nga dugg ci doon ci nga mais boo ni bég yéen dafi puissance ma ni sexe violence on the TV di gën a di firnde gën a di wane ne serious amoo kiiwi ñun nga high class ma ne soxla naa nga maay lu it nga baag sa intellect bu dema ni roog di sol ni góor jigéen te mais nopp naa eh. def bu ñu sonal ci bàkk na yaay ca tuuti yére ba mel ni aram te li ma bëri sa yàlla nga gëlëm bi diis ba nga fàtte classe avec ma badge fàtte classe avec ma the class. classe avec ma casquette t-shirt et les jaquettes ils disent qu'on est des vulgaires guerre Contraigne la façon qu'on me devait Ici le stage est d'enfer Matière de sable pour se lever Les street niggas bougent en cadence Quelle élégance et quelle éloquence Du Timbaland au Air Force De l'adversaire au dreadlocks oh, La marche est belle, le langage est mortel Là où la rue est belle Quelqu'un signe le tout blessé Il pas brûlé clair I can't be doing we burning Niggas see we shining Fighters, we get this feeling On the running today Destination coming On the homeland Rock with full death get set, get till That rock was that red, you break, drop the chain Yet the normal slam, the yakalan, you make a cross The real one, that tail, in under for real In under for bail, not be scared of sale Back to you, put them the yours Put you to jail, ha ha Hype, yeah. take Jamaica you're out for money Yo, watch me cling, cling, you buckle a weird thing legally me, you rock this bling, bling Go that, same job, you deal with a real big bomb Wake up, rise up, if you ready for the jump up, up Leave the game, roll, pop, no, get on, bitch, follow more You see the lyrics at home, so, roll, make, go, chop the again, go, nice, flow, high, so Lyrical, don't be below, huh? High class we do it Real shit we run it Nigga see we shining Mining we get this feeling On the run it do that Destination for me On the yeah, yeah. High class we do it Real shit we run it Nigga see we shining Mining we get this feeling On the run it do that Destination for me On the yeah, yeah, yeah. Só You favor, uma coisa aí. Mentira, You Já gonna me take a little bit You not gonna be clap. Yeah, man. The feeling is clap, we're clap, feeling, man. I believe that I'm class, I represent the class, man. The stands of it. No, no, we ain't gonna look man. Yeah. Uh, I can't be doing let keep it running Let us see me shining We get this feeling On the running today Destination for me On your Like family I can't be doing Let's keep it running Let us see me shining We get this feeling On the running today Destination for me On your family Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Galsen sur scène ma crew Dables. yeah di yóbbu bi kam fi Moda. Dables sama gars yi bëggee naa leen. yeah bëggee bi Bodo. ñu ngi siyaar yeah ñu ngi sant bu wér a. jaajëf tey jaajëf tey moom am naa fierté lool ñëw fii. seet si leen Thiaroye Azur le groupe Dables. salaamaaleykum Sen TV salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Dakar. yaa ngi am sa crew Dables Flexo may wax ak nooni boon ay say xalaatiik jaajëf Paco fii su ma fi toogee daf may fàttali jamono ñi nga xam ne waa Gëble ñi ngi nekk ci sommet wu hip hop Galsen di génnee seen album Rap New Generation fës concert bu ma gënoon marqué ci caaro yi fii la amoon diggante Oslo Dakar Dakar Oslo euh, Seven wala nooni boon euh, jamono yooyu flex yi fan la leen fekkoon ak ci loo leen nekkoon jamono Rap New Generation est-ce que commencé woon ngeen téye mic yéen waa waa Dablessed quoi. jamono boobu mën nañu à quelque sorte ñu woon sax si staff Gëble parce que ñun Gëble euh, c'est des frères ñun instant boobu noonu gëf fu mu nekk Dablessed ngay gis si ginnaaw boo gisul Dablessed ñu taxaw di téye baag ñu ngi téye baag ci ci kaw seen bi quoi ginnaaw Gëble quoi mais peut-être que commencé bu ñu woon def sound mais amour bi ñu fi woon quoi. yaa ça veut dire que Dablessed yàggul. non Dablessed yàggul Dablessed c'est depuis bien te Dable si biir Dëbla la juddoo ci biir répétition Dëbla parce que noonu bon frère Winners ah, nga xam man sama bureau dama nekk manager bi Flexo aussi day fréquenté foofu y avait aussi Gonza qui n'est bi ñu répété ba pare ñu def ay freestyle boobu maag gars yi minante wu ñu minante boobu sax euh, nekkoon ñoo doon ànd nii ak Flexo mais Babs noonu bon mooy frère Winners boobu amul woon benn kii nii quoi mais après Dable si biir Dëbla bi noonu la juddoo mais noonu bu ñuy wax par exemple Dabless rakk waa gëb lañ est-ce que da leen di da ngeen ciy fier wala loolu dina leen xaw a naqari le fait que ñu leen di étiqueté ay waa rakk waa gëb la. ay ñu dem dundewuñu leen. kon ñun daf ñuy yokk doole daal kon donc man li ma mën a wax moom mooy que wax dëgg dañoo servir dañoo servir si sunu expérience en matière de musique mais est ce que kon bokk nañ ci ex si si par exemple euh, ay ñi nga xam ne ñoom ñooy seen référence si hip hop daal seen quoi waa gëb la. oui eh, bien sûr c' est normal xam nga mënu ñoo tëb waa gëb la di seet feneen référence parce que bonne référence la en quelque sorte kon donc bu ñu amee waa gëb la ñun dañ koy jël comme référence en premier. am na yeneen référence yu fi am yoo xam ne nii duñ leen tegg parce que aussi ñooñu tamit ils ont marqué l'histoire waa Gabou dafa nekk ñoo xam ne dañoo jege trop kon donc balaa ñoo jëli feneen ñu jël ñu am donc ñoom référence bu mag lañu ci sunu musique par rapport au nom am na différence trop su may jël ci seen référence waa gëb la ni mu ni mu sénégalisé woo ni mu olofalisé woo ak concept beeg philosophie bi xaw ma nag dables naka la mel ci ci ci loolu quoi tur bi surtout. yaa das it loolu boo gisee da lay wan ne la en matière de musique la ñu wax quoi. foofu bu ñu fa tollee rek dañ naan waa gëb la waa gëb la and dables dables parce que waa gëb la dañoo am seen empreinte boo xam ne moom lañ fi bàyyi te jóge nañ fi nekk leneen. Nous n'a nous en pas dit que nous, ay ay référence faire la même chose donc c'est du pareil au même donc on s'est démarqué on s'est démarqué sur le point de vue sonorité point de vue charisme philosophie et conception donc euh, c'est autre chose en réalité donc Dabless pour les xoolee di nga c'est des frères de Waa Goblin mais boo c'est une musique un comportement tu verras autre chose. mais par rapport au nom signification Dabless Dabless ne signifie rien d'autre que les bénis en français. Les Dablesse, c'est le mot en anglais. Dabless. Donc, ça veut dire les bénis. Moi, ñam vois ci wolof. Hmm. Parce que ñun dañoo teele suñu bakkan nous suñu askan de saga. D'où l'eau, baax de gën. ça veut dire que c'est le point concept de nga ñun la ñu quoi. Hmm. est très engagé dans ce que nous faisons. Hmm. alors ce nom ça nous vient de voir Gëb la même en réalité. parce que au début du mois dañ daan des répétitions et tout avec nous bu ñu daan dégg ñuy rap man Seven promise. dañ daan dégg si ñun un engagement quoi. dañ daan hmm. dégg que ne ñun suñuy texte dafa doon nekk ay textes yoo xam ne c'était c'était pour le peuple en réalité c'était pour des gens démunis. Hmm. donc ils ont dit mais yéen foog ñu jox leen ce nom là. et Waterflow il s'est prononcé par rapport à ça mu ne yéen foog ngeen dem ak turu dables. ok tu vois donc foofu la nom bi jóge après on l'a conservé. et puis daf ñu jox une orientation aussi parce que un nom comme ça boo ko amee tam foog mu jouer dans tes concepts. foog mu jouer tamit ci sa manière de penser foog mu jouer ci sa Euh, par rapport ak évolution wu gëb la parce que bu ma ci jógee ba tey ah, parce que man xamaguma Dablessed te occasion la pour ñun ak sénégalais yu bëri xam tey ñoom ñooy waa Dablessed mais bu ñu xoolee image yu Dablessed man personnellement dama ci fiil gëb la wax na tout à l'heure que gëb la ñu ngi ci leneen yéen yéen ñu nekk ci li ngeen nekk mais est-ce quelque part aussi da ngeen di def continuité joobu waa gëb la wala Dablessed ba tey moo nekk Dablessed. Euh, bu ñu a occasion Et ko ils vont continuer d'exister parce que Dables existe lu yàlla def la mais tamit Dables va pas exister pour continuer quelque chose que waa a fait Voilà avait fait waa nous c'est ñoom mais ils sont en train de faire leur truc à eux bokk yàlla moo koy def quoi ñun instant bi li ñu bëgg def mooy ñu liggéey liggéey liggéey ci musique ci comportement ci leneen ak leneen ba ñu taxaw dañ naan ok dinañ gis gëbloo mais daa bés bi mu ñëw en premier. ok comme xam nga dinañ xam ni bac bi gëbloo la comme ñun ñu nekk woon ci bagu gëbloo di root lu bëri. Mhm. ba dem ba xam ne am na loo xamante ne nous sommes prêts à exploser ce qu'on a. yàlla def na nag ñu fii xam nga ba am chance wu ñuy toog ak gars yi di exposé li Dablessed war a indi lan la ak li Dablessed di def na la lan la Dablessed jëlee ci gëb ban expérience la am si ñoom. parce que on s'est toujours forgé forgé loolu noonu si ñun quoi. grâce à Dieu. d'accord euh, mais bu ñu ñëw par exemple ci Thiaroye Azur hip hop bi naka la fi comporté au niveau de Thiaroye Azur quoi. Hmm, dégg peut être euh, gëb la gëb la jóge na fi mais hip hop bi mu ngi mu ngi fi dund ba léegi quoi parce que y a pas pas mal d'artistes ici côté. real hip hop gars yi daa seen support quoi. yeah. Euh, dafa am benn mixtape je sais pas maxi bu ngeen jot a génnee mixtape bu tudd eight years eight bar pourquoi choix mot en anglais non seulement le nom du groupe ak turu mixtape bi déjà. yeah ñun gis gisuñu différence entre langue quoi parce que dañu gis euh, anglais wala muy french wala muy wolof langues yoo xam ne ñun jeunesse bi ñëpp lañ koy utiliser quoi. aide yor aide bas c' que ñu xam ñun dañoo gis depuis ñuy commencé def sound ça fait huit ans et d' habitude suñu conception euh, d' écriture c' est par huit bas ñu ne at first il faut ñu génne suñu album salaam nañ jox gars yi benn sample dégg li nga xam moom la ñuy préparé mooy suñu album ñu def ci benn sample mais du nekk loo xam ne comme dañuy ñëw joxe lu mu am yëpp en même temps aussi dañuy mu wan gars yi ni ñu pas encore rien fait juste benn lu ñu jot a génne c'est juste que benn huit mesures lañ ko jàppee te huit mesures par rapport équité si mixtape quoi yeah euh, bëgg naa ñu waxtaan tuuti par rapport ak euh, mixtape bi parce que si am na si ay son yi nga xam ne euh, marqué na ma bu ci mel ni àndandoo bu bon bi su ma koy déglu damay gis ni waa waa waa waa Dabless dañu mel ni dañu sentir seen bopp que dañ leen xaw a bon marginaliser si hip hop Galsen le fait que nous étiqueté bon àndandoo bu bon bi quoi waaw kay même si ma approfondir sax ngeen expliquer ma pourquoi tu dis boobu déjà c'est juste c'est juste xam nga euh dañ nan yere bi mhm. wex na wala am na lu ci tax mais ki ko sol ñoom ñoo la gëna mëna wax ni tâche bi lan lan moko waral mhm. mais c'est pas pour balaa ñu egg foofu c'est pas parce qu'on est marginalisé ci hip hop bi mais c'est une c'est une chanson bo xamantene c'est une chanson à e métaphorique quoi léegi damay bàyyi gars yi ñu ko bind sëwën gën ma sëwën ok bàyyi mu jox ko sëwën acca boobu anandoo bu bon bi te déjà vidéo bi juste après nañ ko seetaan en exclusivité hein yesaay bon anandoo bu bon bi pour man c'est juste un éveil de conscience quoi envers la new generation quoi nouvelle génération parce que peut-être que ñun am nañu ay vécu quoi am nañu bëri luñ dund suñu suñu passé quoi peut-être que xam nañ ñu luñ dund suñu passé majeure partie bi dara baaxu ci quoi ah. am na yenn tentation yoo xam da nga koy def ci live mais àndandoo moo la koy defloo souvent parce que y a des trucs yoo xam ñun mën nañu bokk ci ay famille yoo xam dañuy am éducation du fou bien boo xam ne boo xam ne doo ñëw ne teg comprendre foog nga déglu foog nga soxal sa mind ku déglu xam lii nii xam kii fan lay waxee quoi. yaa non non non non non non loolu naa ne man sax sama life day raconter foofu noonu quoi. yaa mais naa xam aussi naka ngeen di bindee texte parce que bi ma posé question bi dañ ne direct yow na nga ko décortiquer. naka la Dablessed di bindee ay textes am quoi. waaw mais naturellement. kooku xam nga. comme ñun dañu nekk ñoo xamante dañoo am benn synergie. parce que ñun mën nañ toog léegi léegi defal la sound complet avec tout ce avec lépp lu mu laaj. léegi bu ñu dund parfois man mën naa nekk sama gàll di déglu ay biit parfois damay jékki-jékki am inspiration ci dara damay envoyé gars yi texte xalaat naa léegi lii ñu laaj xalaatee bind leen. mais man sax su ma ñëwee ba toog studio su ma indee lu ma bind damay damay gis ne gars yi ñu ngi nekk ci sujet jagleel loolu ñu am benn complémentarité boo xamante ne mooy loolu ça nous permet d' avancer de plus belle te bind bi moom voilà quoi ñun gars yi dañ doon ñu doon laaj sax au début kan moo leen di bindal mais yàlla def na tamit dañoo yàgg déglu musique bëggoon musique foo ñu fekk dañu doon déglu mais dama ñu di kenn li nekk suñu ndeg la génne parce que pour ñun loolu mooy artiste na naturel bu ñu gisee sa bind ñu gis yow nice quoi. bëgg naa xam aussi choix wu mixtape bi lu tax ngeen choisir génne mixtape d'autant plus man je sais que ñàkku leen ay moyens son Fred mu ngi fii waa Këble genre yooyu noonu mais jékki-jékki rek indi benn mixtape sans pour autant album te doo leen ma wax manque de promo parce que man am na lu ma jot a xam ci histoire bu Da Bless. ok boo gisee mixtape waa comme thème bi ñu ngi ko waxee street tape la sax en réalité. c'est-à-dire que ñun dañu débuté ci lenn. nekk ci benn liggéey liggéey boo xam ne dafa ñu dem straight dem ci benn album mais par suite c'est par une expérience on a compris que ni jarul ñu yàqal liggéey moo am solo ko donc loolu ñu liggéeyoon pour ne pas nit ñi di am benn attente ñu ne pourquoi pas duñu def benn street tape c'est-à-dire pour montrer benn valeur boo xam ne peut-être gars xamuñu ko te xam ne ñu même bu fekkee am nañ des supports comme les frères a un studio bla bla dañuy ñafe tamit rek

C'est une manière de respecter la musique. C'est une manière de respecter le hip-hop en réalité. Donc ça veut dire qu'on a fait 8 ans, mais on ne le considère même pas. On n'est même pas en mesure de dire qu'on est Darala. Parce que nous avons déjà fait 8 mesures d'écriture. Si incompréhensible. comprend, lors nous avons fait ça. Nous avons fait ça pour faire un emploi, pour replonger dans le travail. Comme nous savons, nous avons fait lii liggéey moo ci nekk liggéey boo am doole liggéey moo am solo parce que ñun yàkkamtiwuñu ko yàkkamtiwu mais am na fu ma leen meree bi ma gisee mixtape bi parce que dama woo Ghostface si boppam clash ko ne ko sound bu nga xam ne yee jaruma yeggale ah. new site bi new site bi ana new site bi new site bi moom mooy Dabless new site bi moom depuis day woon la depuis ay oxygène la. yàgg la mais new site bi moom la ñu bëri xamee Dabless. moom la ñu bëri bëggee Dabless. mais dans les normes bu ñu teg benn affaire bu nga xam ne minimum que day am lu muy représenté lu ndaw si Dabless. new site bi dafa mu bokk si mixtape bi. effectivement am nga new site. Mm-hmm. new site moom mooy first single lu donc kooku emprunt la woon c'est-à-dire mhm. que dañoo ñëw fekk hip hop mu am anam bu mu mel mhm. c'est-à-dire que avec le bases mhm. ñu tàmbaleeg moom mais on voulait faire une différence ça veut dire que sunu originalité personnelle donc boo déggoon dégg ay touches reggae avec les risques yi assez xam différent de ce que tu entends tous les jours donc c'était pour marquer ñun suñu xew ci diggante bi dañu liggéeyaat yee yeneen affaire yeneen ñu bëri yoo xam ne ñu ñu nekk ci biir street bi xam naa ne dañuy mere parce que ñu bëri fu mu toll nii mhm. dañuy laaj pourquoi ñëw si defuñu ko defuñu ko vidéo defuñu ko wala ci affaire bi mhm. mais liggéey fago du doy quoi ok ñëw si ba léegi nii est-ce que boobu nécessité ay critique au début c' est vrai que appréciation yi amoon na. mais le gisuma ko ci. te en plus gis naa ci benn saam bu xaw a niroog moom. mooy daal bi mooy continuité bi. waa kay est ce que amul ay critiques yu mu nécessité. critique yi bëri na même suñu suñu suñu mbokk ne ba que dafa dafa nekk sound boo ne man lu gis ngeen koy play daf ma impressionné. mais mu def ni waaw mais lii nii am na ci town bi. xam nga te ñun peut être que on di dit pas pour se vanter wala pour dara quoi ñu ngi si bañ koy récolter de juste pour fan yii nii ah. yeah ñoo lañu fekk instant boobu gars yi soo leen installé fii witness ñu commencé def plus lu si bëri foofu lañ ko bindee taf taf nii quoi record ko. after le gars yi toog xool sans ñu job yëpp ñu ne peut être que bii moom nañ ko sànn mu nekk first single pour ñu wane suñu benn affaire quoi wane li nga xam ne moom la ñuy waajal mu nekk suñu job quoi. boo gisee aide avant ñu koy génne peut-être que plus nañu des milliers de sound ñun ku ñu bàyyi woon bu nekkoon ñun kase la entre quatre rappeurs man Flexo xama noonu ak Gënsa kon benn 18 titres la ñu génne wala 20 mais par rapport suñu staff gars yi noonu non non booy affaire bi du yàqu liggéey la lépp luy def da nga koy teg si yoon quoi du xam te nañ def et yow et baax leneen ñu téye ko après xool ni ñu tegee suñu album quoi waaw. mixte bi bi ngeen koy génnee objectif bi ngeen ci amoon est est ce que gis ngeen ko ci quoi. sant yàlla sant yàlla bi nañ ko ci bu baax parce que xam nga c' pour plus marquer une présence parce que y' avait déjà une présence. am na ñu amoon na ci musique bi nga wax léegi léegi. en plus musique bi ñu koy génne gars yi dañu ne dafa leen defati lu gën a grave. man moom loolu laa doon wax. comprendre nga te xoolal bàyyi leen xel dinañ génn nekk couleur muy chute te dafay gën soxal mhm. moo da wane na ko déjà te en plus c'était le but pour wax gars yi que ni on vient avec d'autres d'autres sonorités mhm. loolu moo nekkoon diwu mixtape bi parce que boo dégloo mixtape bi wan ba thème mhm. benn bokk ci ak moromam couleur thème yi bokkul c'est pour dire que tamit xam nga on s'est on s'est on s'est très tôt dit bu fekkee dañuy ñëw pour def li gars yi def ñu def musique comprendre pour démarquer wu tuuti pour démarquer wu tuuti mais est ce toujours si base hip hop. non dañuy respecté parce que ñun hip hop mooy musique bi nga xamante ñun déjà on est des fans mais si hip hop la ñu xamee suñu bopp ne moom la ñu en tant acteur mais en tant que mélomane lépp la loolu la yàlla def comprendre nga mhm. loolu moo waral parfois no shit bi nga déggee tactus di que c'est des yoo xamante ne que ñii ñu ngi évoluer Sénégal loolu ñu gars yi bëri doon wax incha allah gars yi dinañ gis yeneen ak yeneen. Mhm. léegi suite bi. Mhm. bi ñu ko defee yàlla def na feeñ nañ ci aspect yu bëri. Mhm. seen yi gën a mag ci Sénégal y a des témoins qui diront que gis nañ Daba sax Saint-Louis. ok merci. récemment on a été à Tambacounda. def nañ Saint-Louis def nañ feneen ak feneen ñu ngi waajalaat feneen ak feneen. loolu moo nekkoon bi pour être là pour que le nom Daba pèse. mais bu ñu ñëwaat ci album bi nu nekk leneen incha allah. ok mais loolu ban période lañ ko mën a xaar wala ba tey yéen a ngi ci phase promotion. instant ba léegi ñu ngi ci phase promo du yàgg dara nag fii quelque temps c'est que on trop se prononcer sur des dates. Mhm. incha allah dinañ joxwaat yeneen single. Mhm. wane ni ba léegi ñu ngi si xàccu album bi. mais ba léegi ñu ngi si promo. d'accord ba léegi ñu ngi si promo mais bëgg naa xam aussi relation ak Nubian yi wala ba tey si local bi rek lay yem quoi instrument yi. ok bon pour euh, Street Day bi. on a carrément bossé côté production ak ñoom ñoom mais pour l'album bi dañoo am plus d'ouverture am na yeneen personnes yoo xam ne ñu ngi aux alentours. te bëgg nañu liggéey ñoom ñoom seen bopp a créé ouverture. ok liggéey sans woon ak lépp ñoom ils seront toujours là. mës a manqué parce que ñoom ñoo liggéey daable comme tool bi ñoom ñooy continuer liggéey boobu noonu. mais pour wane leen y aura d'autres différents producteurs différents couches musicales loolu pour ñu wax ko gars ñu préparé wu à ça. parce que album bi di ñëw dina bëri couche yu différent. dina bëri côté musique bi dina différent côté xalaat bi dina différent. te loolu yëpp expérience moo ñu ko mën. expérience bi ñu ñu toog xam nga jël suñu temps jëriñ ko. ok. mais bëgg naa xam aussi euh, c'est vrai que relation yu nice am na ci hip yi mais damay gis par exemple euh, euh, waa Dapless ñoom dañu fier trop ci seen koona li mu leen di gis yu si bëri ci ay spectacle doon ci région yi wala Dakar ñu ko wër mais fa la nekk ci ay studio ngeen di nekk fa la nekk da ngeen di nekk ci Thiaroye Azur est-ce que loolu inspiration la wala loolu yéen a du dugg ci lu si seen yoon du nekk wala yéen vous êtes des de studio quoi. non on pense que quand on fait une apparition quelque part. benn bii bu défini moo koy waral ko avant tout ñun dañoo am objectif te objectif boobu dañ ko mos a wàcc donc pour nekk euh, di di def ay comment dirais-je di figurer n'importe où n'importe comment wala def pour lekk figurer nous on n'a pas ce sens nous on réfléchit à travailler déjà te lu ñu am moo on est des professionnels dans le travail donc ñun lañ dem liggéey a le produit ñu exposé ko comme l'artiste moom buy fenn donc fekkee day li ba pare après ñu ci exposition bi ci la ñu ñëw xool après def seen aperçu. ok donc ñun ñoo travail a ça en réalité. ça n'a rien à voir ak dañu bëgg isolé wu ñu dañu bëgg. non dañu respecté lu ñuy def rek. ok waaw donc looloo ñu ñu am idéologie boobu ak conception boobu par rapport à la musique. ok d' accord euh, bëgg naa ñu wax tuuti aussi ci ci hip hop Galsen hip hop Galsen surtout yéen si seen génération bokkul ak génération Goblo bokkul ak génération PBS daara ji mais yéen da ngeen bokk pour moom si troisième génération wu hip hop Galsen naka ngeen ko gisee par rapport à à l' évolution de votre génération am ngeen si yaakaar wala seen xel mi ngi tey wala yéen fu ngeen ceene dana mun a am ay feedback ci hip hop Galsen troisième génération bi naka la comporté woo actuellement. ci domaine bu nekk nag. waaw ah. on peut dire ñun. Euh, ah. liggéey fii dans l'ensemble pour ñun nice quoi. parce que par rapport côté côté musicalité côté xam peut-être côté côté promo. pour man lépp instant bi ni nice quoi. c'est juste que ni yenn affaire la gars yi war si exclure quoi peut-être que y a certaines personnes yoo xam boo ko déggee dinañ ko déggee dinañ jàpp ni ki day wax pour wax. mais dafa am loo xam dañ ko exclure si sport bi. comme par rapport nañ ko refléter ak suñuy réalité par rapport ak suñuy éducation. Mm-hmm. parce que ñun ay sénégalais lañu. majeure partie bi peut-être que dañoo bokk dans bon bonnes familles. Mm-hmm. bu ñu jël hip hop bi ni affaire de mbedd mbedd mbedd mbedd mbedd ñun ci biir gaale yi dëkk bi foo ñu ñëw ci mbedd bi. Mm-hmm. gars yi nañ dindi affaire de saaga yi ak insolence yeeg yooyu noonu affaire bi nice quoi. yeah man loolu laa sama point de vue loolu la ko yëpp. te en plus kooku pour ñu gën a kii foofu hip hop bi xam nga yow wax nga léegi léegi ni ñun si troisième génération bi lañ bokk. waaw mais ci lañ bokk. parce que def nañ si <laughs> xam nga ci côté ñun dañuy dañuy wax ne am na loo xamante ne ñun waroon nañ ko fekk. Mm-hmm. ci côté parce que hip hop bi pour mm-hmm. les rappeurs. c' est pas seulement les artistes. il faut mm-hmm. animateur. te nag feneen il est il est il est il est manager. Mhm. il faut que mu am des gens yoo xamante ne ñoom dafay nekk amour si pour nous ouvrir dans le monde sans pour avoir l'amour d'apparaître. très bien comprendre nga. Ah, il faut que ñu exposer ce qui ce qui ce qui doit être exposé. maanaam mhm. l'artiste. Mhm. et ce qu'il fait. am na ñoo xamante ne tey jii boo leen c'est des c'est des c'est des fous de scène. dañu lay monter scène background après doo xam kan ñoo ko li ngay gis mu nekk ci kaw mooy li nga xamante ne c'est ça doit valoriser la scène mooy l'artiste. il faut tamit gars yi xam ne l'artiste à lui il peut faire une chanson grave quoi mais da y a toute une équipe qui doit être derrière l'artiste il faut ñu am benn structure. Mhm. Euh, il n'est pas dit que ñu ñëpp dañoo war a booloo parce que bu ñu boolowee bu ñu amee bu ñu bokkul lu ñu gëm dafay jékki-jékki mu wadd. mais il faut que gars yi di penser à l'équipe quoi il faut ñu am benn structure benn agriculture mu ngi fii. ji euh, hip hop mu ngi fii. na gars yi def yeneen ak yeneen on en a besoin day Jolof Live day studio day yeneen ak yeneen on en a besoin c'est pas pour euh, faire une publicité wala loolu moom bu ko jëlee ñu def ko mais on en besoin parce que. ñun on n'est la dernière génération am na ñoo xamante ñu ngi si ginnaaw di ñëw il faut ñu fekk waa Gëbloo ñoom fi ñu jaar ils ont jamais voulu ñu jaar foofu. ci coono ci métti. si si ñun am na loo xamante ne parfois dañ koy daj bu ñu bëggee dara dafay métti si ñun bëgguñu suñu booy yi daj ko. Mhm. ñi nga xamante ñu si ginnaaw. Mhm. donc di wax gars yi que ni concertez-vous wala concertons ñu trouver une solution a xam nga bàyyi fi benn équipe boo xamante ne dina xaw a yombalal gars yi liggéey bi. ok ok wax côté organisation. est-ce que yow partage idée boobu. day que le truc n'est pas organisé à 100% en réalité nous, nous lu ñu lu rek parce que nous on fait des souvent des des réunions juste pour nous concerter par rapport à la musique ici au Sénégal parce qu'on en fait partie on donc des sujets de réflexion lay suscité des fois donc nous on la wax je n'ai pas. Il y a un manque d'organisation parce que si am na ne comprend nañ am ñoo ne comprendre pas faut le dire quoi donc dafa am ne tey pas pop Galsen ñoo ko ci parce que dañ koy collé étiquette yoo xam ne amu ko nañ jaay affaire bi free nit ñi liggéey ñu bokk xol bokk lépp si yaa ngi comprendre affaire bi mën a grandir quoi. to grow as one. on n'est pas divisé donc man pour ma idéologie bi yëpp loolu la quoi foog ñu foog ñu foog ñu rester sur ces points là. donc par rapport nag à l' organisation bi mu lay wax ñun dañ koy tàmbali si ñun. on est bien organisé. on est bien pour organiser du point de vue social, du point de vue activiste. On est, on est des activistes en réalité. Mhm. Nous avons fait pas mal de choses pour Bolay Travailler avec les Américains pour les pour être par rapport aux talibés, par rapport aux jeunes de la rue. On a fait le tour des écoles. On a rencontré un artiste. artistes yoo xam ne sax peut-être nous ñu qui ni ni nii mais ñoom ñu ngi liggéey ci côté boobu noonu. ñu ngi dem ci école di di booy yi faire comprendre parce que. rab bi ci boppam dafa mhm. mooy base bi. donc ñun newuñu fi rek pour inciter booy ñu rab. Mhm. dañuy inciter booy ñu dem seen gàll yi gën a gën a liggéey ñii war a jàng. ñii war a def leneen def leneen ñun loolu mooy suñu objectif. kon donc ñun foog ñu travailler ci point de vue boobu. te ku ñu gis rek. Ah, ngay liggéey ci côté boobu. amul nga dëkk amul feneen nga dëkk dañ lay fekk ko c'est très important manque d'organisation wax na ko mais ils ont aussi soulevé des des solutions te loolu c'est très important. j'ai l'habitude de le dire le message est dans le rap ma crew Da Bless from Azur. naa faral di laajte aussi côté organisation. Euh, wax nañ ko léegi par rapport ak euh, dund bu nga xam ne waa gëm la ñu ngi ko doon dund ñaanuñu ko ñoom aussi seen petit frère ñu di ko dund surtout si côté coono si côté coono dans la mesure man dama leen di gis fu nekk dama leen di dégg ci fu nekk est-ce que loolu dafay nécessiter peut-être ay cachet si seen génn wala ay transport wala da ngeen koy def jës foo da ngeen bëgg hip hop quoi wala seen présence ngeen di marqué wala dans le cadre la promotion quoi. c'est c'est aussi une très parce que. y a des gens yoo xamante parfois dañuy def benn manifestation ils t'invitent quoi dañuy jékki-jékki ñu woo la yooyu Dab Less Gang xam nga concert nii mais foofu la yeneen gars rawee ñoom bu ñuy déplacé artiste dañuy xam ne dafa am lu àndal mhm. parce que tout le monde n'a pas la chance d'être artiste mhm. loolu noonu ñun bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xeexee ba xamoon ba beneen génération bi di ñëw ñu am chance bu ñu leen di déplacé. Mhm. ñu déplacé leen avec tout ce qui va avec. Mhm. dañu naan xam nga sant yàlla yaa quelque chose d'accompli. ok parce que ñu on est mooy li ka sama waa ji wax sànq noonu on n'est pas là pour xam nga insister aux jeunes de faire du rap faire du rap. Mhm. mais avec un but assez précis quoi parce que na gars yi jàng ba pare mooy li ñu doon wax sànq structure ku xam artiste xam lan la artiste di daj kooku moo mën a déplacé artiste mu fay ko. cachet bi ci la parfois dina di nga am foo dem. parce mhm. que fii Sénégal la tamit Paco tey benn benn benn benn artiste ma wooyee damay dem parce que damay am damay damay ñëw support ko. parce que artiste la quoi parce que dama koy lu muy def. Mhm, mhm. mais koo xamante ne yow da nga am sa structure te li ngay def da nga si nga si war a da nga si war a Mhm. kooku tamit lu mu dee yoon la nga jox ñu déplacement. te en plus. waaw. base bi base bi noonu. même bu fekkee artiste la. ok même bu tamit. Mhm. waaw mën jàmm ñëwalante beeg këtt këtt mais tam foog ñu teg affaire sur des bases professionnelles aussi. très bien bu nekkee ne artiste na ce que tu organises am na des am na des trucs mais joxal gars yi parce que ils se sont déplacés pour ñëw supporter benn affaire. Mm-hmm. le minimum c' le déplacement. ok bien comprendre. d' accord non gars yi waxuma gis affaire gis naa leen yëngu leen def ngeen ay affaire mais est ce que bay si sa tam am na solo. est aussi di ngeen koy def mooy li am duñ ci mën a. <laughs> non li nga wax la euh, parce que ñun euh, y moment boo xam ne dañu naan ñun on a besoin des gens quoi foog ñuy dugg si yenn tawaan yi foog ñuy dugg si yenn ruq yi mais day am benn moment am benn stade boo xam foofa tollee yow peut être que déglu yow yaa si doon def say financement yaa si doon dugg say affaire mais am na foo xam boo fi tollee commencé génne say produits da nga si def moon da nga si def xaalis bu bëri day laaj gars yi rendre rendre na ko quoi mais bu dee entre benn affaire boo xam ne. on est comme des frères parce que bëri nañ ci ñoo xam ni naturellement nii on s'est connu mais dafa mel ni dañoo bokk lépp quoi. parce que fii la majeure partie des rappeurs dañoo positif. da nga ci xamante kenn deux jours trois jours mais dangay gis affaire boo xam ne yow da lay jaaxal sax quoi. moo tax fu ñu la woo si genre affaire yooyu noonu li ngay mën def mooy nga ñëw support. Mm-hmm. loolu la rek ah. Euh, bokk nañ ci rapport yu gën a ñàkk ki ñaan ci hip hop Galsen xaw ma nag luñ ko seq ak artiste bu ma xam la wala dañ ko généraliser ak ñëpp. yàggul dara maa ngi waxtaan ak nit dof mais lu ko gën a métti ci concert show of the year mm-hmm. mooy ñàkk joué wu Da Bless benn mm-hmm. sama album Paco gars yi dañ ci jàpp bu baax mm-hmm. même prévente yi gars yi dañu jaay ba mu jeex blog yi ñu leen joxoon non seulement du ñu jaay blog yi li ñu versé moom mooy prix li ñu jaay mais dañ ko jóoni jóoni te jóoni jóoni bi ñoom seen bopp ñoom ñoo ko fayal seen bopp ah, mm-hmm. xam nga. yéen a yéen a c'est que. yàgg na quoi. non moom moo wax nii nag personnellement parce que man yëguma ko woon. parce que man la joxoon ak yéen boobu ñu ngi Tamba am na ñu seen aussi ñun noonu lañ koy moom c' est que buñ seqal moom peut être am na ñenn ñu ko seqal quoi xool ak biir xam nga ñun ñun ñu gis artiste rek xam nga bu ñu gisee artiste. daf ñuy neex koo xamante ne dafay def loo xamante ne jour show nit dof bi. waaw instant bi muy yéeg. Mhm. dañu taxaw mën a euh, un artiste Balbada. ñoom mhm. lii dafa nice. mën ko trop. c' est pas parce qu'on n'a pas joué qu'on qu'on pas apprécier c' que ñun bu ñu gisee sax musique bu ñu déggee artiste bi def musique bu nice bëgg-bëgg bi ñu am si musique daf ñuy neex ba duñ ko mën a téye suñu bopp boo rombee dañ ñu teg caan mais li ñu yàlla boole la te mënuñ ko seetlu mooy musique non ñun musique mooy daw si parfois nag gars yi mal à comprendre pas l' mais la personne mais il faut gars di am tamit parfois qu'est-ce qui fait un artiste. Mhm. qu'est-ce c'est quoi la comportement d'un c'est bu ñu sowantewul lool du dem du yëg yëg-yëg na yëg-yëg yi génn ko gars yi di denc. man su ma fii nit def lu muy def damay ñëw na ko bureau allah ak wërsëg doon je suis un fan. parce que nit def bu ñu njëkk a waxtaan man ak moom. Mhm. loolu mu njëkk a wax je suis fan de ce que vous faites. surtout surtout surtout surtout musique bi. merci. ak yeneen xam nga voilà xam nga monsieur Fane parce que kooku amatoo fayam quoi. kon artiste moom mooy doole artiste am bien euh, sûr. kii Ghostface mos nañu ëppee ñaari t-shirt table muy ay t-shirt yu te chaque fois su ma ko waxee dama ko wax ndax dañ koy commercialiser mais du ma wax lu leer non yi ngeen di jaay album yéen kese di jaay ay ticket concert yéen kese di feesal ay yëngu-yëngu mais pourquoi doo leen commercialiser seen ligne de vêtement on l'a fait depuis longtemps loolu noonu commercialisé woon nañ ko commencé woon nañ def des ventes mais il s'est trouvé que maintenant fii trouver des t-shirts de qualité parce que ñun dañoo amoon ku des t-shirts. ok yoo comprendre ñu liggéey que c'est un peu difficile parce que tey boo naree defar benn t-shirt tu le vends à dix mille. ndax mhm. personne qui achète. Ah comprendre que ne yow ni ñu ci def doo ci gagné sax benn cinq cent que. Mhm. déjà t-shirt bi rek léegi dafa cher print bi kenn waxatu ko donc ñoom ñun ñi nga xalaat ñun ban moyen la ñuy indi pour reprendre la production donc si même c'est faire ça sur des t-shirts yi nga xam ne moom la ñu am très simple pour que ñu mu mën a nekk accessible à tout le monde tous les ñi nga xam ne ñii si société bi ñi nga xam ne nii ils sont démunis ñu ko mën ñu ko mënul on va faire de dañuy def qualité yëpp dañuy defar yu baax yoo xam ne ku mën a génne jënd ko jënd ko ku mën a génne cinq mille jënd tamit bu toll noonu nga jënd ko donc c'est une manière quoi c'est une manière de commercialiser les choses mais duñ ko bàyyi mukk et puis ñu ngi ci ay yeneen inspiration design yoo xam ne mën nga bañ a gis sax Dabless mais c'est autre chose quoi on est dans dina baax. Euh, ça fait plaisir ah ñëw tey fii Thiaroye Azur di ma fàttali ay histoire yi nga xam ne def na pratiquement ay huit ans ay neuf ans ci suma carrière rajo ndax seen grand frère di waa Gëble ma leen di shout out Mr Workflow ma mel Witness DJ As aka Gëble di déggee aussi Sister Kaf di déggee aussi ma brother Ghostface One Love brother leen rek laa leen di ñaan bu tagoo tàggoo ba pare ngeen dooral ma waaye mën na nekk ok man moom maa ngi bàyyi gars yi jàmm ak jàmm nañu yàlla sàmm defal ñu jàmm ba nekk si wéer jàmm beneen numéro Galsen sur Scène Maku Dabless no shit. Aicha Bok. Yep, yep. Yeah. Them say we are the best at the best. Yeah. The freshest at the fish. They, they come to run things I don't crew camping. You follow we from the way. Fact right every day. Triple funny drum. Yoko gum. Feel better days. Yeah. The top of the top. Uh huh. The rappers are the rappers. Every time we pan the mat, them should I know we are the that. Minyoti jap to tie. Salty fellow. Gani. the Khan Khan. It mm-hmm. go up with your money. Back with the flavor. Flavor just wanna be trapped me blow up like a baby girl fell fella biza b-boy for reason new shit me def send bro, level the next me next and shit then the bound you really blessed like us a show they kill mass yo full of die kunne the gas gentleman to get it bounce with it uh, with it never mess with it flip yeah so the pure lyrical dove so cherubopic uh-huh Mikey Percy mix so that's the shit you be big yo royal light a hustler demo fighter we bless is death back burn back biter society send sackler rap yo makler dakler rakler 对没？ on the Doppler, yeah. Nobody can stop her, yo. Bring the rockers, death noise, ni gun New shit answers righteous, fuckers, bit pajagas. Can I ask her? Lu tax guys and hip hop during ngaka. Get rid of spirit, lyric, atomic effects. Boom. Mythic vibe, new shit, meditate the light, medic drop on nationality, cow the lonely dread. Laxer, tanta fast, uh huh. We saw this a mind the foxer. Home my people, yeah, better bounce for the track, crack, crack, your neck, yak, to the flag. Sweet boys. We klaar. de visa en melodies die ah. fucks in the news. We best are the best. The fishes are the fish. They come from wrong things and no crew can kiss. You follow we from the way. why. Every day. Jubel from jump. Yo, gum. Very better days. Yeah. Top of the top. Uh -huh. The are Every time we pan the Mac, them should I know we are the best. You know, you jump to a tie. Sol te hello Gani. khani. Go slow with the Bless up. Yep.